alhamdu lillahi waxda walsalaatu walsalaamu ala abdihi wa rasulih muhammadin wa ala alihi wa xisbih wa man ihtada bi hudaahu ila yowmi liqaa amma baad mbokki jullit yi ñu ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal yàlla ci def ay ndigalam suñu kem kàttan te bàyyi mboolem ay tereem mbokki jullit yi xeetu lislaam buum yi ko boole ba mu doon aw xeet buum yu bari la su fekkoon ne jullit yi jëfandikoo nañ lislaam nañ leen ko sante su fekkoon ne jullit yi topp nañ seen diine na leen ko seen borom digale kon buum yi leen boole bari la kon ñu junj rek ci lenn ci tomb yi nga xam ne dafa war a dundal bennoo gi nga xam ne jullit yi dañ ko war a bennoo muy rawabitu waxdatil umma ba ci jëkk moo di ne xeet wi xeetu tawxiid la xeetu wéetal yàlla la doon gim doon aw xeet sax bañ mën koo tuddee xeet mi ngi tegu ci kaw wéetal yàlla gi nga xam ne dafa wéetal yàlla moo tax mu mën a tudd loolu di jaamu benn buur boo xam ne ñoom ñëpp ñoo ko bokk walla moom moom rek lañu war a jaamu di topp ay ndigalam loolu ci boppam mooy boole xeet yu bañ doon benn moo tax borom bi tabaraka wa taala ba mu waxee ne inna hadihi ummatukum ummatan waxida seen xeet wi wenn xeet la daf cee teg ne wa ana rabbukum faabuduun man maay seen boroom jaamu leen ma soo xamee ne jullit yépp ànd nañ nangu ne yàlla dong mooy seen boroom amuñu keneen ku ñuy jaamu ku dul yàlla moom rek ci moom lañuy ñuy jëlee ndigal di ko topp muy ndigal lu jóge ci alquran wala mu jóge ci sunna kon kooku ci la benn xeet wa di amee ci lay tudde it nag aw xeet li feeg nag xeetu lislaam ñi ngi jàpp ci seen pas-pas bu wér boobu bu jaamu yàlla rekk bañ ko bokkaaleeg dara kon juuyoo ak ŋaayoo ak wanante gannaaw day néew lool ci seen biir wala day bañ a am sax jamono yoo xamee ne nag pas-pas boobu yi doon benn sàggane nañ ko wala ñu dellu ca gannaaw wala ñu dugal ca lu ca bokkul loolu mooy indi juuyoo ga mooy indi tàqalikoo ga moo tax borom bi tabaraka wa taala daf ne fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw yéen ñii ma jarlal muy saxaaba yi ñiy ñëw seen gannaaw su fekkee ne gëm nañ gëm gu mel ne seen gopp nee na ñooñu kon gindiku nañ wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaaq su seen gëm dikkee nag jooyoo ak gëm gii ngeen gëm yow Muhammad yaag ñii nga àndal xamal ne bu boobaa lam leen di jural mooy shiqaaq mooy ŋaayoo goo xam ne amul fu mu kon tomb bu njëkk bi ci tax xeetu lislaam ñu mën ko tudde aw xeet mooy tawxid jamono yi ñàkki tawxid nekkatul aw xeet su ñuy wax umma itam bu boobaa dañ naan umma rek ci làmmiñ waaye umma nekku fa ñaareel ba mooy li ñu tudde almarjiiyatul mushtaraka référence muy ki nga xam ne su juuyoo amee ca la ñuy dellu kooku xeet bi am gi mu ko am gañee na ko xeet yu bari ba tax seenu benn waroon naa gën a fese foofu delluwaay boo xam ne mooy alquran delluwaay boo xam ne mooy sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam akuk dellu goo xam ne la muy jur muy ñépp ànd xam ne royuwaay bi moo di yonent bi sallallahu alayhi wa ku ñuy roy ku ne wala ñu lay topp wala ñuy jël sa ndigal dañ koy jël ci kaw ne da ngaa topp ndigalul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag loo rëy rëy ak loo màgg màgg ak lu la nit ñi fonk fonk ak lu ñu la bëgg-bëgg boo wanee gannaaw njàngale yonent bi alayhi salaatu wasalaam nit ña dañ lay wan gannaaw ci kem nag na nga ko wane gannaaw jàpp ci loolu bañ koo génn muy jural xeet bi ñu nekk benn jàpp ci ci seen pas-pas ak ci seeni jaamu yàlla ak ci seeni jikko kon li fee xeet wi ñi ngi am référence boobu muy royukaay boo xam ne mooy yonente bi sallallahu alayhi mooy sallam mooy alquranul karim xeet wi bennale ko day yomb bennale ko day yomb waaye jamono joo xamee ne bàyyi nañ yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci roy ko mbooloo mu nekk wut seen royukaayu bopp boo xam ne day fétal yoonu boppam su boobaa xamal ne tàqalikoo dikk na juuyoo dikk na bañante dikk na noonoo dikk na ñetteel ba moo di jaamu yàlla yi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala nu koo sant bennale gi mu ko bennale nga xam ne néewul mag na jaamoo nii yàlla na gone jaamoo nee yàlla askan sàngam ña dëkk Afrique nañ jaamoo nii yàlla tubaab ba na koy jaamoo ne naar ba na ko jaamoo ne déedéet doomu aadama dañ ko wone ko ñëwal doon ab jullit bi mu doon ab jullit ba àggal ñu ne ko yéen ñëpp jaamoo leen nii yàlla muy jaamu yàlla goo xam ne ci alquran la jóge ak ci sunna kon loolu ak benn le la goo xam ne benn le mu ne mel yëmut ci def leen rekk waaye yabal ab yonent boo xam ne dafa jàngale jaamu yàlla googu nuñ koy defee lenn lu nekk mu ne nii la bu dee pas-pas mu xam ne lañ war a fas ak lañ warta fas la lay musal ci bokkaale bu dee julli mu ne nii la ndax nga xam na mu ko doon defee mën a mucc ci biddaa bu dee aj mu ne nii la xutu anni manasikakum bépp jaamu yàlla bu nekk mu jàngal la ko wan la na koy defee ba soo jàddee yow yaa jàddal sa bopp wante fekk lépp leer na ñam ko jàngalitam itam doon ñu farlu muy saxaaba yam doon dundal ñu jële lépp ci moom ñu góor ña nag ak jigéen ña ndax sunna ya nga xam ne mënta tasaaroo ca bitti sunnas biir kër la soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ko toxal kon ñi toxal léppam la ca biir kër ga ak la ca bitti jot li ko boroom xam-xam yi ñu bind ko ci téere yi mu tasaaroo ba agsi fi nun boroom xam-xam yi di ko dund di ko royante di ko toppante ba mu agsi ci jamono ji mu agsi kon ku bëgg a gindiku delluwaat ci lool yi nga xam ne mooy ndono la jóge ci alxuraan ak sunna day daal di yomb lool da ngay daal di mën a mucc ci biddaa mën a mucc ci soppi diine su ko defee bennoo xeet wi day daal di mën a juddoo ci bennoo googu ñu bokke ni ñu jaamoo yàlla waaye nag su fekkee ni ñenn ñu nekk ni ñuy jaamoo yàlla bokkut na ko ñu ca des di jaamoo yàlla kenn ku nekk jàpp ne sa moroom ci réer la nekk te delluwuñ ca la nga xam ne suñ ci dellu gindiku muy alxuraan ak sunna su boobaa nag ku réer yaa réeral sa bopp su boobaa ku réer yaa delluwut ca lay gindi nit ña ndax coow yi moom bari na nit ñi it kenn ku nekk loo nekk lu nekk mën ngaa nax aw nit ba dugal leen ca waaye nag juuyoo su amee nit ñi dañoo war a dellu nag ci yëf yi fa mu tàmbalee woon foofu mooy alxuraan ak sunna moo tax benn boroom xam dafay wax ne lislaam bi mu ballee ca penku dafa mel ne rek ndox moo xam ne dafa ball rek di walangaan di dem ci suuf mu ne xeet wum romb wu nekk wala dëkk bum romb bu ne ndox ma bu fa tolloo day nuroog seen suuf dangay gis ñoo xam ne suuf su xonq fa nekk ndox mi day xaw a xonq couleur bu mel noonu lay jël su ko defee buñ ko yëkkatee dañuy wax ndox mi de nii rek la war a mel ku yor ndox mu mel ne neen yow sam ndox baaxul mu romb ñeneen ñoo xam ne suuf su ñuul lañ yor ñu tànq seenub kaas yëkkati ne ah, ndox mi nii rek la war a mel ku mel lewul nii baaxul kon juuyoo daal di am ku bëgg a gindiku kon dangay ngay dellu ca fa yëf yay tànqe fa muy sotti koo nga tàllal sab kaas foofa fekk laalagul benn suuf soo yëkkatee ne ndox mi nii la mel kenn du ko mën a weddi noonu la alxuraan ak sunna nag mel jamono yi nit ñi juuyoo xamal ne la koy juuyoo la mooy xalaati nit ñi ak yee fental seeni bopp dañuy fental seen bopp kuréel bu nekk am ku naan leen defal léegi bàyyil lii loo xam ne fa moom la jógee loolaay juuyale xeet wi suñ bëggee xeet wi doonaat benn nag dañuy dellu ci ñooñee fañ doon jële muy alquran ak sunna ñu jële fa ndax gindi ku mën a am ñeenteelu li bennale xeet wi wala mu war leen a bennale mooy bokk benn xibla bu ñuy julli jëm ñoom ñépp di julli jëm fenn muy Makka loolu day wone ne ñii bokk fenn fu ñuy julli di jëm day aw xeet lañ wenn xeet lañ woo xam ne ñoo tudd xeetu lislaam xeet la woo xam ne dafa yor benn mission ci kaw suuf boo xam ne moom lay jottali muy gindi doomu aadama jële ko ci lëndam yóbbu ko ci leer juróomeel ba ci yi nga xam ne dafa benn la xeet wi wala mu war leen a bennale mooy jóg gi nga xam ne jullit yi dañ koy jóge fu ne ci penku ak ci soow ci ndeyjoor ak ci càmmooñ at mu nekk jublu néegu yàlla bi jublu màkka ngir di defi faratay aj néeg boo xam ne mooy néeg bi gën a tedd ci àdduna ci suuf soo xam ne mooy suuf si gën a sell ci kaw suuf ñi ànd ñoom ñëpp daje fa mboolem xeeti doomu aadama yi yàlla bind am ñu leen fa représenté teew fa muy ab gis boo xam ne doomu aadama ji koy xool jàkkaarlook moom gis mbooloo moomu nañ tolloo ak ni ñu wuutee ci ay couleur ni ñu wuutee ci ay askan ak i xeet ak i aada ak i cosaan ñoom ñépp ñu bokk daje ci benn ëtt jullit bi di ko xool di leen dégg ñoom ñépp ñu yëkkati genn kàddu labbayka allahuma labbayka labbayka la sharika laka labbayk ñi yëkkati kaddu tawxid ànd ak ñi xamul sax loolu lu muy firi ñi di ko wax ma ne loolu jullit bi bu ko xoolee moo xam dafa teew ànd ca wala dafa dem ba seetaan ko sax ci ecran wala lu nuroog moom am na lu mu koy fàttali moo yëgal ko ne ko ndekete moom kenn la ci biir aw xeet ndekete du moom dong kenn la ci biir aw xeet wu màgg woo xam ne fu ne la àgg ci àdduna woo xam ne xeetu nit wu nekk bokk si na ci su ko defee kooku day dund ci kaw suuf yëg ne moom benn membre la bu bokk ci biiru xeet yëg ne ni muy doxale boppam di wutal boppam lu baax noonu lay doxe di wutal boppam xeet mi lu baax su ko defee itteem nag day yëkkati ko ba weesu ittey boppam waaye day àgg nag ci ittey nit ñi su boobaa nag la nit ka di doon nag ab jullit boo xam ne mi ngi tàmbali di dund nag li taxoon ñu bind ko ci kaw suuf muy taxqiqul ubudiyya fexe ba sunu borom tabaraka wa taala ci suuf moom dong moo fi doon yàlla ab yonentam doon ab yonentam ñeneen ñi ci des ñëpp doon jaami yàlla ak wayroy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day dem ba xalaatam suy xalaat xalaat yi ku bokk ci xeet lay xalaat suy dem demiinu ko bokk ci xeet lay dem suy dikk dikkiinu ko bokk ci xeet lay bokk su loolu amut nag waxuma la ki toog feneen sax waaye kane ca biir aj ga te yorut xalaatiin woowu maanaam aj juralu ko lam ko war a jural day dem ba ittey boppam képp moo ko tax a jóg buy waaxu di dem ak a ñëw ci itteem lay dox buy xalaat ma ngi xalaatal boppam suy dox sax gis ay rukk ak ay xat-xat bañu te fiir nit mu daanu mu jaar ci kawam jàll pour musal boppam kon kooku yëgatul ne moom askanoo na ci aw xeet waaye boppam boppam lay défendre léegi amatu soxla ci keneen kooku mooy nit koo xam ne léppam mooy pour boppam lay itteem ci biir aj ga mooy nu koy àggalee ba mucc ak jàmm ba delluwaat yoonam nekkul ci leneen kooku mooy koo xam ne day xalaat ànd ak boppam su ñibbisee la muy fàttaliku sax ca aj ga ay fàttalikuy boppam la waaye fàttaliku yu dellu ca xeetu wa amatu ca su boobaa nag maanaam ma taxoon aj jóg muy benn la doomu aadama yi ci kaw suuf benn la jullit yi moomu maanaa dafay daal di làq juróom-benneelu li wara a benn la jullit yi mooy li ñu tudde al iid iid muy feet googu yi nga xam ne ñaari feet la ci julli jullit yi am muy feetu korite ak feetu tabaski feetu gi ñu tëdd ko al iidul kabir nga xam ne mooy feet gu mag ga kori gi kon mooy gu ndaw ga feet day lim làmboo maanaam iid buñ ko waxee ci lislaam ay maanaa yu rëy la làmboo yoo xam ne bégal xeet waa ngi ci biir nit ki suy bégal mu bégal boppam bégalaale ñi ci des ñi amut sax mu tàbbal mbég ci seeni xol jàppale ka mënut dimbali ka lot xamal sax ka xamut ñépp àndandoo yëg ne seen bis a ngi boo xam ne tey ñoo ànd di ci bég mu ànd ak li ñu tudde alwaxda wal insijaam muy ak bennoo goo xam ne day ànd akuk xaritoo akuk jàppalente ànd def lu baax ànd akuk dindi lépp loo xam ne lu suufe la kon loolu mooy cosaan ci ci iid ci wépp xeet woo xam ne nag mos na cafkal bëgganteeg say mbokk mos na cafkal bennoo ni mu neexe waaye iid day saa bu ñëwee ci ñoo xam ne dañoo tàqalikoo <coughs> ñoo xam ne dañ leen fekk ñu tàqalikoo ñenn ñu nekk def seen kuréelu bopp ma ne iid su ñëwee du yenu maanaam mu mel noonu du ko indaale lu tax mooy fekk na yàq nañ lu rëy loo xam ne dañ koo amoon ci seen biir muy xol yu bennoo ak wóolonte ak jàppalente ak bennoo tàqalikoo ga su amee su iid ñëwee day doon benn màndarga ci màndargay tàqalikoo yi bu boobaa waaye duutu nekk mukk màndarga muy boole lan moo gën a ñaaw ñaari mbokki jullit ay dëkkandoo ci bennub dëkk léeg-léeg ci bu réew bul dee sax ci bennum réew neel ci bennub dëkk bul dee ci bennub dëkk neel benn quartier sax walla sax genn kër faf kenn ki ne tey la sama iid damay feetu keneen ki ci des ne damay xaar ba suba mu door a doon sama iid ana maanaam iid ma ana maanaam dem na ba àgg ci jullit bi ni mu daan bégee ci iid bu jublu see ak mbég mi mu daan yor ak bànneex bi mu daan séentu dem na ba iid jubee njàqare lay yor foofu njàqare lay fan lay jaar ba julli suy julli kuréel a ngi fii di julli am beneen boo xam ne julli kee ngay rendi kee ne suba lay rendi su ko defee lan lay jur suñ ko waxee ak suñ ko waxut mooy juuyoo gañ juuyoo woon lu jiitu it gii ñëw màndarga yaa ngi fés ñu bari dañuy defe ni yu mel noonu day tàqale jullit yi kii wari tey kii wari ëllëg kii ki tey kii tabaski ëllëg yooyu day tàqale léeg-léeg loolu tàqale jullit yi dafa fekk jullit yi tàqali ko loolu doon benn màndarga boo xam ne dafa daf caa fés maanaam ña tàqalikowuloon doon benn ba it gi ñëwee day def la muy def rek mu jàll ñoom ñëpp di doon benn mu jeex waaye nag ko googa dafa doon loo xam ne dafa doon lu cosaanu ca nit ña dafa nekk ba noppi nga xam ne lu yëngu rek feeñal ko lu yëngu rek tàqaliko googa feeñ ca lan moo gën a ñaaw jullit bi jàpp ne bis bii nga xam ne jullit yépp ña nga arafa taxaw ña nga taxaw arafa muy bisu juróom-ñeenteel ci weeru tabaski jullit yi ànd taxaw arafa yow jullit bi nga ne tey du arafa su ma dee woor damay bàyyi ba ca suba sa ma door koo woor ndax mooy sama arafa man fa ma nekk kon loolu la muy firi mooy ña nekk arafa ñépp seenuk aj baaxul ci moom a at ban bis lañ taxaw arafa mu ne ah ci juróom-ñetteelu fan ba lañ fa taxaw kon man damay xaar ba suba di juróom-ñeenteelu fan ba man ma door koo woor fekk mooy bisu iid ba mu def ñaari njuumte njuumte bu njëkk ba bisu arafa bañ ne la woon na nga woor sun na la nga woor ko nga bañ koo woor foofu njuumte bu njëkk la ñaareel ba bis ba ca tegu nag war a doon bisu iit nag nga xam ne moom dañoo araamal ku ko woor faf nga woor ko nag far ne mooy sama yow mu arafa teg ca tuumaal jullit yéene bis bañ taxaw arafa du arafa te boo demee say rakka nga ca say baaye nga ca say maga nga ca say dooma nga ca sa ñoo xam ne yaa leen yilif sax nga ca biir nga ne taxawuñu arafa maanaam seenu aj baaxul ndax alxajju arafa loolu yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ku aj te taxawoo arafa wala nga taxaw ci beneen bis bu dul bisu juróom-ñeenteel ci tabaski gi sa taxaw arafa baaxul te jullit ba munta wax ne wala ci yorum xelam munta wax ne diggante fii ak fa ñuy taxawee arafa sore gi dafa mat bis déedéet tey jii doon ajjuma ñu taxaw fii di julli ajjuma mooy ajjuma foofee ca lañ taxaw julli àjjuma ñoom itam su fekkoon ne loolu day qaayida maanaam ab régal général boo xam ne dañ naan saa bu ñu nee tay la ca màkk bu ëllëgee suba sa mooy fii kon màkk dañuy julli àjjuma ba ci suba sa nun door a julli àjjuma waaye loolu amul yow mi naan dañuy taxaw arafa ba ci suba sa mu door a doon sama arafa buñ jullee iid ba ci suba sa mu door a doon sama iid yow moom yi bis ba ñuy julli àjjuma ca ngay julli àjjuma loolu noo koy lijjantee kenn mënu koo lijjanti kon jàpp naa ne jullit yi ginnaaw fenn fu ne ci àdduna dafa am ñu fa représenté wu ñoo xam ne seenum réew lañu jóg dikk daje màkk jàpp naa ne suñ doon juuyoo ci ay bisi iit sax bisu tabaski moom war nañ cee mën a bañ a juuyoo moom ci aalamul islaami bi yépp bu jullit yépp àndee yëg na tey la arafa bu ëllëgi ñoom ñëpp war nañoo yëg na tey la iit foofu yëkkati ko dammate yeneen yi yeneen yi gàllankoor yi askanoo yi kër sàngam laa bof kee laay topp kee déglu yooyu yépp dafa waroon a maasaloo ba la fay des mooy nit ki mu yëg ne jaamu yàlla digganteem ak boroomam la yàlla lay jaamu jaamuwul doomu aadama jaamuwul leneen yàlla lay jaamu mu xool la ko alxuraan digal mu def ko la mu ko tere mu bàyyi ko la ko sunna digal mu def ko la mu ko tere mu bàyyi ko kon mbokki jullit yi maanaam mu réer yi dafay làqu day nëbbu dañ koy ñàkk ci bisu iid maanaa moom mooy di dund iid àndandoo di ko dund yëg ne aw xeet lan wenn wenn wu diw xeet maanaam moomu dafay làqu su fekkee ne lu mel noonu la dund yëg gën doon yëg ne nun suñ communité bi li ñuy bari bari bari ñenn ñee ndax ñoo bokk bis bu ñuy defee lii loolu dafay daal di doon maanaam moo xam ne mu làqu la yii nag dara dara mënu koo dindi lu dul su fekkee ne jullit yi dañoo dellu surtout seen i njiit surtout seen i njiit ñi ñuy déglu ñoom ñëpp dañoo nangoo bàyyi lépp lu dul la alxuraan digle ak sunna ñu jàpp ca loola. jamono yoo xam ne dem nañ ba def loola ñu topp ci seen gannaaw ñëpp danañ wëlbatiku topp ci ñoom jàpp ci alxuraan ak sunna su fekkee kenn ku ne nag da nga ne su ma jaxasoo kee wala su ma àndeeg moom damay seey ci biiram su ko defee sama la ma yoroon kenn dootu ko déggati kon nag kooku meneen mbir lay doon lu mat bàyyi xel noo ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal xeet wi tawfiq yal na yàlla delloo xeetu lislaam ci diineem ja gën a wér mu jàpp ci bu wér ni yéene yi selle ba kenn ku nekk bëgg lu baax yal na ko yàlla jàpp ndale noonu ba kenn ku ne lu baax loolee nga jàpp ca di ko jëfe ci sa pas-pas ak ci say jaamu yàlla ak ci say jikkoo fegal xeet wi lépp loo xam ne lu koy tàqale la lépp lu koy suufeel la lépp lu koy toroxal ci kanam ay noonam la yàlla na borom bi tabaraka wa taala nangu jaamu yàlla yi nga xam ne jullit yi ñu ngi koy def ci weer wi ak ci fukki fan yu nga xam ne fukki fan yi jaamu yàlla la fukki fan la yoo xam ne tabaski ngi ci biir aja ngi ci biir koor yi ngàtt yaa ngi ci biir ñaan yi jullit yi ñaan a ngi ci biir lépp lu ca doon aw yiw na dellu ci xeetu lislaam lépp lu ca doon luy dàq lor yal na dàq lor ja mu jóge ci xeetu lislaam wa sallallahu wa na ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi